asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 9 décembre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey fi ñu koy xëy commencé muy yëglikaay bii nga xam ne moo di sunu làmb sunu lamb nag tey que mu xëy dalal mu ngar daaju yëglikaay bi di fa wax la ko neex ak la ko naqari mooy Moustapha Diop mi nga xam ne moo fi tëggoon combat royal bii passé doxoon ci diggante Eumeu Sène bu taay singa ak Modou mi nga xam ne mooy actuel roi des arènes mu mel ni kii nag Moustapha Diop ma leen tëggoon moom xëy na génn ca pataaral ga mu nekkoon daal di wax Moustapha nag la mu xamle daal nee na li leer ba leer day kasawu ñaari mbëree moom boo ko dee xool parce que dem na ci maanaam trois cent millions moom Moustapha Diop waaye daal daa mel ni mbir ma moom ba ca jógee ak perte la ca jëlee ndax nag jàpp na ne daal lu toll ci téeméeri millions day perte na ko ci làmb jooju nga xam ne tëggoon na ko la ca des mooy tamit lu toll ci vingt cinq millions yoral na ko ku ci nekk ci mbër yooyu ba tey moom Moustapha Diop mooy wax jàpp na ne làmb jooja daal maanaam échec total wala boog échec boo xam ne daal ci wàllum koom da caa échec waaye échec tamit ci wàllu ay yoo xam ne waroon nañoo ñëw ca làmb ja seetaan si ko te ñëwuñu mu Moustapha Diop moo xëy tey ngardaaju yëglikaay ba di ca wax leneen loo xam ne tamit toppe na ko ca lam jooja wala ñoo xam ne mu ngi leen cay topp muy ay sponsor yoo xam ne digaale woon nañu ak moom waroon koo jox dara te ba tey jii ba biig furaas li xëddeen joxuñu ko dara loo xam ne nii daal mooy la mu waxante woon ak ñoom mu mel ni ki ba tey kon Moustapha Diop lam jooju mu tëggoon daal am na ca ay jafe-jafe yoo xam ne daal moom daal boo bëggee dégg-dégg ñëw na ci jàpp na ñëw na tamit ci combat yoo xam ne amoon na fi moo xam Balla Gaye de Modou wala Eumeu Sène Modou Lo ba tey boobu nga xam ne moo ko tëggoon ci wàllum pay-per-view ba lu ci nekk daal moom laal na ci waaye li leer ba leer daal jàpp na ne day moom lam jooju daal ca conférence de presse ba xamle woon na ne day bu koy organiser ka nekk ca ginnaawam grâce à kan la muy ki nga xam ne mooy Sidi Diagne borom Excaf waaye Moustapha daal fi mu nekk nii moom loo ci mën a dégg daal daa mel ni daal xëy na wax olof nag nee na ku bëgg a dee moom foow dangay ngay wequ yëglikaay bi moo xëy dalal ko tey waaye mu mel ni ki tam wax jooja duñ ko sori ndax ka nga xam ne nii day moom moo di mbay Guèye premier tigre de fas mu ngay wax ca mbir mooma ci yëglikaay bii nga xam ne moo di record nee daal li leer ba leer day kase yi moom li leer ba leer cinquante ba soixante millions jaadu na ndax nag jàpp na ne mbir moom na mu ñëwee dañ koy jàppe noonu te xëy na jamono jamono moo toll foofu ñu ne ko léegi mbër yi mu ne li war a def ñoom mbër yu mag yi mooy jéem a ubbi buntu yi may xale yi sens bëre ak ñoom ci jéem a wàcce kasa yi ngir mbir yi mën a dox jëm ca kanam ndax ne na moom ba mu ca tolloo defaloon na ko docteur Faye ki nga xam ne tamit moo di per Birahim Ndiaye tamit ba mu ca tolloo defal na ko Ibou Ndafa maanaam joxe sens loolu mooy waxi mbay Guèye ci record ci wax yi mbër yu mag yi leneen loo xam ne tamit wala keneen koo xam ne nii moom fekk nañ ko ci Leewtoo TV muy dégg roi des arènes Modou nag waa ANPS la nga xam ne nii moo doon piréem ci mbër mi dàq bëre ci làmb ji jox nañ ko ko ci wàllu nit avec frappe muy bër ki dem ca samedi ja ñu fekk vidéo ba ca Leewtoo TV Modou di sant di gërëm ñamu àndal ci làmb diriant carrière ba tey ji ay xaritam ay entraîneur am ak i supporter am nee na daal moom mënu leen a fay da ndax sax li leer ba leer Modou nee na dooley jën ndox la moom Modou Lo moo wax lool fa nga xam ne moo di ca Leewtoo TV mu mel ni tamit du moom dong làmb ja àndul ak dóor tamit général Malika moom itam jox nañ ko pireem moom itam mu ngay sant ña nga xam ne ñooy ay mbokkam ak ay dëkkandoom rawatina waa Malika waaye leneen loo xam ne tamit dañ cay dem ñoo xam ne moom piri ba ñu gagné tamit war nañ leen koo jox le 21 décembre muy waa Yoff yëglikaay bi di sunu làmb ñëw xëy ci nee na daal di leer ba leer rek trophée ba moom le 21 décembre la ñu koy jot ñoom waa Yoff yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu waaye ba tey bu ñu demee fa nga xam ne moo di ca Leewtoo TV làmb ja amul dem Iba Mar Diop feesoon del foroon for te fuur Gibson moo ko tëggoon mu doxoon ci diggante Bulldozer ak Brise de Mer numéro 2 bu Caaroy waaye mu mel ni nag làmb ja moom baat ak tontu la ndax kii di Bulldozer daal mayul ki nga xam ne mooy Brise de Mer fu mu yàkke ak nàkkam dafa dox ci koom forcé ko xeex ak moom Brise de Mer daw di tib tànk ba mu dóor ko tànk suruxal ko mu dugg bés bopp ba jël ba leer loola mu nga fa nga xam ne moo di ca Leewtoo TV yëglikaay bi moo xëy ñëw liggéey muy lambi simple mu mel ni ki nag weekend bi moom jaxoon na lool fa nga xam ne murun ca sookoon moom ka fa teg tànk mooy si Ahmadou Bamba Sarr moom daal moo fa daan càkk fay jël bu rëy rëy waaye fa nga xam ne tamit moo doon ca mbam la commencé le 6 ba le 7 décembre ki nga xam ne moo di Grand Mbagnick Faye moom itam daal mbërum maar faafa ko ba daal moo fa teg tànk moom Grand Mbagnick daal di jël lañ fa tegoon waaye fi nga xam ne moo di ci terrain gaal gi wala Adrien Senghor Tall li leer ba leer bu dee fi nga xam ne moo di gaal gi moom Cheikh Tidiane Niang moo fa wan gars yi la mu mën a daal di leen daan demu yoonam jël lañ fa tegoon finaalo ka nga xam ne moo di Sélémélé loolu mooy li nga xam ne tamit moo amoon ci weekend bi ci lambi simple mu mel ni kii daal kon bu bëggee dégg dëgg moom lamb ji joxoon na ba yegg ci lool lool lool waaye li leer ba leer daal yaakaar naa ne semaine yii nu jëm wala weekend bii nu jëm itam nar naa jax ndax la ko commencé la 14 bala 15 diggante Sénégal gii ak Gambie làmb jàng fa ndax baaba Jaw mu nga fa xam ne mooy Iba Mar Diop borom càmm production ca samedi ja diggante Pape ndooy ak ki nga xam ne moo di Jackson Senior waaye bu bët setee idaali ñi ngay ñëw ak ki nga xam ne mooy saal Bambey ak booy Bool numéro 2 waaye jamono jooju ca Gambie tamit bàyyi ma njoon mi ngeen xam mu caaroy mu nga fa ak xoyantaan roi des arènes Gambie foofa jamaykee moo fa jaar mu mel ne ki daal kon fi mu nekk nii moom li leer ba leer VIP yi doonte bëriwuñu waaye li leer ba leer daal xale yu ndaw yi moom ñu ngi bëri coon sekk nag am na lu mu wayoon fi mu nekk nii comme jën yu mag yi jeex na yabooy bi moo fi des wala ñu raar nañu jàpp ci yabooy bi te bañ a giiroo ndax giiroo moom saa yoo ko defee mën ngaa fot a yàgg mar mës ngaa giiroo bu yabooy wala mësoo koo giiroo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 waaw ko loolu am nga xam ne mooy Tafa Diop Tafa Diop soo lañ ko déggee mais patron patron OK Africa moo tëggoon combat royal dëggante Eumeu diggante Eumeu Sène ak ki nga xam ne mooy Modou Lo génn wax nag jafe-jafe nga xam ni moom la jànkonte bu mu tëgg combat boobu nee na moom nangu na nekk yoral na mbër yi ku nekk 25 millions ñu ñëwaat na aussi si cachet yi nee na ñaari mbër yi seen cachet weesu na 300 millions ñëw na daal ne moom nangu na ne aussi que combat bi bu mu koy tëgg kii si di Sidi Diagne bu bu bu RDV jàppale na ko Babacar moom daal wax na lépp loo xam ne daal métti na ko si si combat bi moo xam ne moom la moom moom moom la tëgg euh, fin de saison bi. waaw ñu koy nuyu di ko jaar Moustapha Diop patron OK Africa ah di ko wax ne tamit di ko encouragé parce que am na li nga xam ne nii tey boo ko defee yaa ngi dégg maanaam fital la koy def loo ak bëgg yokk sa dëkk ak bëgg a participer tamit ci sa développement wu réew en loolu moo taxoon mu am initiative fu dëgg combat bu toll noonu combat bi nag li mu wax ne que ni kase bi dem na ci 300 millions wala sax mu romb ko ah loolu tamit du du xaalis bu tuuti yaa ngi dégg ak loolu ku mën a ne sa ginnaaw loolu jàpp naa ne du tuuti sans te loolu bu te li mu wax ne que ni làmb ji échec ci moom parce que bu dee ci popularité làmb ji moom amu ko loolu Sénégal constaté nañ nit ñu wuyu si stade bi demu ko noonu côté xaalis tamit perte na ci nee na 100 millions ba pare yoral na mbëri ku nekk 25 millions loolu nag souhaité wuñ ko woon ko loolu nag li ñu ciy jàngate mooy ku ci nekk rek sooy ñëw di def dara yaa ngi dégg bu dee loo mës def la àndal ak ñu ko mës a def nga waxanteeg ñoom te yàlla tax jéem a xool yan porte ngay jar ak yan bunt mais tamit man euh, du ma ne kenn bul ñëw ñëw ci làmb wàcc bés rek tëgg yan combat yi de waaye boo koy def na nga koy tijji bu baax a baax a baax bul ko def ci ñaari weer bul ko def ci ñetti weer parce que cent millions wala loo xam ne boo ko budget boo ko calculé na dem 500 millions loolu foo koy dugal war nga ko étudier bu baax a baax a baax am na ñoo xam ne nag tey ku mel ni Gaston Mbengue wala ku mel ni Luc Nicolaï wala Aziz Ndiaye wala ay ñoom Assane Ndiaye ak ay Pape Abdou Fall ay jéy seen ak ñooñu ay fàllu ñooñu su ñu defee loolu parce que ñooñu loolu la may mën a wax yàgg nañ ci làmb mbapat nañu du ñu ay gan ci làmb topp nañ làmb en tant que amateur wala en tant que supporter topp ko ba xëy nekk promoteur kon xam nañ fi nga xam ne ni fa la jafe-jafe yi ne ak fi nga xam ne boo fa jaaree mën nga ci génn mais nag vraiment itam des fois ah, dafa am yoo xam dañ koy faral di gis te man yooyu euh, dama koy xaw dama ciy xaw di tiit su ma gisee ku jóge fee rek ñëw yor benn xaalisam rek ñëw jubal ci yenn combat yi des fois boo si jógee mën na la indil jafe-jafe yu mel ni te lii ko kenn vraiment xen tamit loolu la Mbaye Gueye le premier tigre de moo tax mu wax ci record ne moom daal d'accord na pour nu plafonner cachet yi ba 60 millions pour VIP yi Babacar waaw parce que laaj bu ñu ko laaj bu ko Abou Ndour laaj que ni kaso yi est ce que cinq am na ñuy wax cinquante millions mu ne ko cinquante ba soixante jaadu na effectivement yaakaar naa ndey ku ma faal soixante millions du xaalis bu ndaw cinquante millions waxi noppi waaye nag waxuñu ne mën mbër tamit lii ngay fayeku parce que ñoom mbëri ñoom ñooy seen ñooy bëri ñooy seen ay encadrement xam nañ la leen arrangé ak la leen jik waaye nag yaakaar naa itam soixante millions moom defe naa kër gu mu duut dina fa fat bunt làmb ji nag xëy mu toll ni ak wax ji ñu ciy dégg ak muy doxe yaakaar naa wàcce kase yi pour mën a bëre loolu leen bay Guèye wax mën a tamit nangoo may seen ay rak sens ngir bëre ko parce que moom ne def na ko ba mu cay toll defal na ko euh, ki nga xam mooy docteur Faye kii defal defal kii nga mooy père Birahim Ndiaye tamit defal na ko Ibou Ndafa yaakaar naa tamit tey kon mbër yi mag yi nga xam ne ñoom la ñu duppee ay VIP il est l'heure loolu tamit ñu veillé ci jiima tàllal loxo seen ay frère seen ay rak pour que lamb ji gën a mën a jóg jëm si kanam waaw maama ko suñu jógee nag si record nañu dem fi nga xam ne mooy Leewtoo TV Leewtoo TV samedi mi ngi woon si euh, soirée bi nga xam ne ANPS daka ko jagleeloon euh, les meilleurs sportifs de la saison amoon nañ fa nag ñaari mbër euh, kenn ki muy Modou Lo moo nekk meilleur lutteur en frappe keneen ki muy général Malika meilleur lutteur en lutte simple Babacar yaa ngi foofu ñëw sa équipe. waaw ñu ngi foon ak Leewtoo TV parce que comme li ñu wax rek fii moom ñu fi seetaan lenn lu dul làmb raxuñu ko ak dara 100 pour cent làmb lañ fiy def moo tax samedi ñu ngi woon fa nga xam ne mooy civil musée des civilisations africaines Euh, biir dakaar xam nga Modou Lo ñu koro ñu ñu jox ko trophée mook général Malika parce que sportif yi la ñu tànnoon yi ñu jàpp ne ñoo gën a ràññeeku ci at bi jeex footballeur yi jàngam sàngam ak ñu demee ni ki noonu ah vraiment mu nekkoon guddi nga xam gu neexoon na ñu ci félicité waa ANPS tamit ci organisation bi rawatina seen président ki nga xam ne nii moom mooy Ablaye Thiam ak ñi mu àndal ñëpp xam nga gis nañu soxna yi xam nga ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar parce que tamit def nañu effort di nuyu tamit le ministre des sports monsieur Matar Ba assisté woon na ak l' entraîneur national Aliou Cissé Augustin Senghor ñëpp ñu ngi foon ak le ministre des sports Gambien tamit ñëwoon na teewe si ko muy wane que ni daal guddi gu neexoon la Modou Lo tamit vraiment ah euh, wax na que ni daal moom lii mbégte la si moom kontaante la si moom di ci film moom it nee na mu ngi koy delloo ñi nga xam ñoo ko encadré boobu ba tey ay entraîneur am ay supporter am ay xaritam parce que carrière yombul. nga dem ba dégg roi des arènes dégg meilleur sportif de l'année ñaari yoon defe naa kon ñi nga àndal itam c'est normal nga sant leen gërëm leen général Malick tamit vraiment moom it lu mel noonu la wax ci ñi muy àndal parce que moom it xale la yàggul si làmb mais bu ñu ko nominé meilleur lutteur ci wàllu mi kon mu nekkoon guddi goo xam ne daal gu rafetoon la goo xam ne nii daal macha allah daal waaw Babacar suñu jógee nag si Leewtoo TV nañu dem si Leewtoo point net foofu la ñuy xamal ni ki nga xam ni mooy euh, Max Margan léegi moom mooy manager ki nga xam ni mooy euh, Bombardier Max Margan nag laaj nañ ko ci réaction bu njëkk bu nu bu nu joxee information boobu moom nee na daal loolu amul dara lu bees nee na c'est les retrouvailles ndax avant Pa Yéri Jaxate avant nem si yàlla Pape Dia moom moo nekkoon manager ki nga xam ni mooy Bombardier. waaw kon dañ koo jox la mu moom rek wala mu delluwaat ci yëfam rek parce que yaakaar naa ne koo xam ne yaa ko yor seetaan làmb con def nañ ko saabu Bombardier début carrière am lépp mook mag Mbargane na ko ànd ba bi ma leen di mujj a gis gis bu moom gën a jàpp mooy bombar Bombardier ak Tyson stade Léopold Senghor yaa ngi dégg defe naa kera bi action bi amee bi arbitre yi dawee nit ñi daw père Max Margan du ma ko fàtte mukk kera mu ngi sol blouson kon defe naa tey. blouson bu verte bu verte voilà bu ñu ko joxaatee bombardier mu war ko menacé parce que ki ko yoroon muy frère am génne na àddina yaakaar naa ne kon loolu mooy rek seen diggante ñoom ñaar dëgër am na ci te ku ci ne yaa ngi sàmm ko lërige muy moom muy bombardier parce que père Max moom loola waaye manti wax moom mag la mi nga xam ne royukaay la. ci làmb wala sax mën naa ne royukaay la ci dundu sénégalais ndax itam nit la bi nga xam ne daal nit ku nit la ñu ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram di ñaan seen diggante boobu liñ ci séentu yàlla na leen ko yàlla defal waaw Babacar si kàddu yoon leen tàggoot leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu muy nuyu sama yaay Merso nuyu sama doom Mohamed Diouf di nuyu ki nga xam ne mooy Asandine déjà Brahma chéri Khadija Diallo euh, depuis Italie di nuyu ki nga xam ne mooy euh, As Seck chéri Khoudia Seck depuis aussi Italie Verrecchio di nuyu samay doom Mam Diarra Penda bébé Fallou bébé Rokhaya bébé Moussa di nuyu ki nga xam ni mooy euh, mbay Seye depuis Ouest Foire di nuyu. Euh, Aïcha ma dem ñaar ak ki nga xam ne mooy Aïda Diouf di nuyu aussi Zé Bombardier. waa di nuyu ñëpp man tamit tey nag sama nuyu dama koy jagleel ñi nga xam ne nii sa mooy sama waa dëkk muy wax ak yaay parce que doomu ak yaay fu ñu mën a ne si àddina bi moo xam ñi nekk à l'étranger ak ñi nekk ci biir réew mi maa ngi leen di nuyu. bu duma ci fàtte ku mel ni la commandant Aliou Ndiaye di sama papa ci man nekk fële ci fi nga xam ne mooy brigade bi nekk euh, Tivaouane Peul maa ngi koy nuyu dem ba tamit fi nga xam ne nii moom moo di lycée Mousse de la Fosse nuyu fa ki nga xam ne mooy Alioune Badara Kama di professeur foofu di doomu ak yaay di nuyu ñëpp ku mel ni Modou boobu tamit mu nga ba Mboro di fa professeur ñu ñëpp di doomu ak yaay ak Aliou Ndiaye beneen di directeur de école ca Njakalak parce que tamit nit ku ne lu dul fa nga dëkk man ak yaay laa dëkk kon doomu ak yaay fu ñu mën a nekk rek commerçant yi dëkk ak yaay Ousseynou Ndour mu ngi marché ci leen Elimane Ndour marché Sandaga di nuyu taximan yi nekk ak yaay tamit waa gaar ba maa ngi leen di nuyu grand gare de Dakar ak commerçant yi ak ñi nekk marché Sandaga fu doomu ak yaay nekk rek jàpp leen ne Babacar a leen di nuyu di leen sago mécanicien yi na Petersen ku mel ni sama papa ji fay di mécanicien nekk fa nga xam ne mooy Colobane moom tamit duma ko fàtte di nuyu ñëpp ñoom Kër Kumba Seen nuyu naa ñëw sama xarit yi bopp yi Abdou Aziz Ndiaye ak Mbaye Ngom nga xam ne ñoo bokk benn dëkk tamit ay taximan Aziz di commerçant ñuy samay xarit ñu yaroondoo màggandoo tey daal waa ak yaay lay nuyu di leen ñaan. blouson bi nag blouson bi moom Ousmane Gueye moo fa génn borom Émile Badiane moo ma xool dem ba mu neex ko mu solal ma lii. coppite nguy jonn maa koy nuyu moom tamit dëkk Mbaaraan moo ma ko jox dem mais tamit di wax mention spéciale Saliou Khoule borom Zik FM may wax sénégalais yépp na ñuy bàyyi Saliou Khoule xel ndax nag yàlla may na ko ci li muy def man na ko macha allah. yàgg kenn day moom mention spéciale ay yàgg maar dama ko ñaan rek soxna su baax ci décembre bi. loolu am na solo si seddaay ba suba incha allah.